salaamaaleykum je me nomme ba pare maa ngi tudd Ousmane Fall maa ngi dëkk Ndar j'ai 15 ans xam nga ñun gaal gi bañ siy dugg di dem waa marine espagnole dañu dañu toppoon quoi ak waa marine Sénégal mais ñun marine espagnole bi ñu toppee mooy nañ quelque distance sax mais marine Sénégal moo ñu doon sonal si biir géej gi quoi xam nga di def ay va et pour bëgg dëpp gaal gi mais dem na ba benn instant dafa mujjee jël élan ñëw rek ba si bopp gaal gi daal di fël quoi gaal gi daal di dëpp ñu si nekkoon ñëpp wàcc xam nga.

si la ñu fekk si biir ndox mi waaw mais ñun li ñu bëggoon mu bëggoon teer quoi bëggoon teer suñu ñëwee ñu régler problème bi mais ñoom bëgguñu woon ñun ñu teer waaw état bi ubbi si ay rek ndax marine sénégalais moom pour ñun ñun dañ daf ñu waroon couvrir quoi sa morom sénégalais pour ñun dañ leen waroon couvrir wala leen sauver quoi si ndox mi mais nañ ñëw leen leen jéem a leen jéem a daaneel quoi loolu tamit dafa métti ñun pour ñun espagnol yi ñoo waroon ñoo def loolu sénégalais yi ñoo mais sa morom sénégalais da ngay teg lu métti ba ay nasaraan ñoo di ko jàppale tamit loolu dafa métti plus de soixante dix personnes ñu ngi si gaal plus de soixante personnes dee nañ plus de soixante personnes nañ si gaal 39 personnes moo sauvé waaw

loolu dafa doon jeex si dëkk bi quoi à chaque fois ñuy dégg naan nit millions moo sàcc ay millions de millions xam nga ñun duñ ko gis ay xale yu ndaw millions bi dëkk bi di yeewu ñu lay jox reer dafa quoi parents li daj affaire yooyu noonu su doon suñu sago tamit nguur gi quoi parce que jeunesse bi moo mën a yor réew bi ne yëg nañ ko am na ñeneen tamit xam nga am na affaire yoom soo ko wax parents la mais sa ngor ak sa dignité moo lay mën a quoi